tuddee sama drapeau la. ah nga ni ma nag. waaw père. <laughs> Modou. waaw père da wax léegi lu doy waar. combat bi. man daanaka dama mel lu xaw a nelaw. combat bi sama drapeau la. waaye drapeau Modou Mbaye prince am nga problème. li tax ma ne la léegi nag ci sama drapeau bi laa bëgg ñëw. olof dafa ne askan. wala ab xeet boo ci sargalee kenn rek sargal bi ñëpp. gars yi s'il vous plaît waaye nañ leen déglu waay yi ñaari mbëri kaa leen taxaw nii ci yéen la ñuy wax. olof dafa ne askan boo ci sargalee kenn sargal nga ñëpp te combat bi drapeau Saliou Khoule la sama doom Saliou Khoule bu Zik FM <laughs> Saliou Khoule ñun ak moom ñoo bokk métier bi ñuy def kon sama drapeau la drapeau Baye Balla la sa drapeau drapeau presse bi ñëpp la dëgg la drapeau képp koo xam yaa ngi wax ci micro la kon yaakaar naa loolu suñu bés la ñu tut ñu ko nag ñaari ndaanaan Ama bu Malika ak Fëgg la mm. ñoom ñaar ñëpp ñu ay ndaanaan mm. ñu bàyyi leen ñu tàmbali aca Modou bismillah ci yéen di sant suñu ñaar waajur di sant mbooloo bi fi teew yëpp ñu fi fekk ak suñu mag yi di sant sécurité bu baax a baax di sant presse yëpp di bëggee daal du nuyu soxna Matou liggéey bi ñu def si presse bi rafet trop fu mu mën mu fekk la fa di sant Baye Balla Mbuba Baye Balla Mbuba mu def liggéey ba mu solo man ngi koy sant bu baax di nga gërëm di nuyu sama gars yi ma àndal ñoom Petit Diané Pierre Dramé di nuyu Cheikh Amar mafia Jakarta bi. waaw salaamaaleykum. ginnaaw bañ sant yàlla julli si yonent bi di sant suñu ñaari waajur di sant ñi ma àndal si te borom Malika di sant sama mbokk mbokk yëpp. xam nga di sant ñëpp ñi ma àndal di sant sama papa waaw di sant sama bopp bu baax di sant waa Malika Kër Massar yëppal Poul waaw di sant Mbaye ñoo bokk koñ xam nga di ko ñaanal ndam tamit waaw di sant waa Malika montagne yëmbal Poul képp laa ma leen sant dinañ wax ne combat bi dañ ñëw bu baax dañoo dañoo am lu ñu manqué woon. lu leen manqué woon. non baaxul yàlla baax na. léegi dina manqué woon mat na. yàlla na yàlla defal jàmm ba gis ko. waaw bi muy sama adversaire tamit. alors léegi yow li la manqué woon ci sa adversaire bi nga koy. ne ko mu laaj moom ma ko. voilà ne ko mu ñëw laaj ko. Modou Mbaye. yàlla dafa def dama neex xale day si noor. ñu yónni ma yàkkam bi ma. ngeen bu sax ba ma def mooy. ngeen bu sax dafa daan fëgg la. mu jógee la. waaw gars yi dégg nga eh, ama fii la ama eh fii la. ngeen bu sax ba ma def mbër man dafa daan sama fëgg la mu jógee stade 10 heures fekk ma dîner may entraîné. barke Seydina Ahmed may wax ne bu fekkee fen la yàlla moom la heure bu may dugg kolam di entraîné mu ngi nelaw damay dugg ba génn bàyyi fa nit mu doog a dugg si. gars yi ñu déglante waay yi. oh oh. xam ngeen li moo tax nit ñi ci dugal nit ñi parce que da ngeen te jaru ko. C'est nous dans nous. Arrêtons, arrêtez ce que vous faites. yaa ngi dégg kii boo xamee xam ne moom magam rek mais bu ma laajee magam billaay wallaay na la delloo avance bi. waaw ndax la ndax la. déggoo li ma la wax kii jabaram. booy kii daa mel ne da laa xam ne. dama koy daan ba pare mu tuddee ma doom muy ñetti doom. incha allah Mourou Mbaye kii dama bëgg li muy wax bu mu ko ragal. waaw comprendre nga li mu wax. bu mu ko ragal ñun ay góor lañ ay baax ay doomu góor lañ ñuy wax dañ koy respecté man lu ma la bëgg a wax dama la koy wax nga dégg ko avant yaa ngi dégg man ñëw ma ci làmb pour défendre Feugeula wala ma o ci làmb pour Daouda Sandwich dama ñëw pour sama cër bi ma am ci làmb dama doon liggéey ñu dàq ma ne ko dama nga bëri ji da nga am ci làmb ci cër cher ma la ma am ci làmb ci cër mais ma ñëw ma def cinq combats cinq victoires comme ma pour foo yaa ngi dégg baale ma la boo xoolee ay interview yu yàgg ci ginnaaw barki nga nit di nga bëgg a bëri ak moom tey jii nii am na boo yoo xam ne sax xam nga kii tey dama ko may sens. wallaahi billaahi wallaahi talaay moom moroomam du maam moom. billaahi wallaahi. da ngay xeexal moom. làmb moo demee noo xam ne. da ngay xeexal moom. ñu la war a daan buñ la daanoon buñ la daanee rek. waaw ñu yab la. ok mais moom da ngay xeexal. incha allah la benn yaa yàggul. <laughs> même pas vingt jours xaw ma. waaw boobu jour ba incha allah. Mourou Baye kii dama koy yërëm. da ngay xeex si wala looy def. non dama koy yërëm dama koy tontu ci wax ji dama koy yërëm. Ah. parce que mënoo teg ay defet tourné jël booy bu ne ci yoon. li mu yaakaar amul. barki Serigne Touba li mu yaakaar amul. xam nga benn galwa man galwa laa soxlawu ma rëy soxlawu ma nan dara. nit di entraîné def ñàkk nu ma ñëw ak sama état noonu daf doo toll ma manipulé la. Eh, lu mu liggéey lu mu liggéey du fanaan kilifa la. Ah, boo amee ci boo amee combat la. mais Modou Mbaye man ñi ma daan moom ëpp leen ay mambaal la daan ay saamu yabay bu yoof ñi ma daan moom biru leen te li muy wax nii nii barki Serigne Touba dina tax ma daan ko mu tourné takki jamono ñun mooy ne yàlla taxawaluñ yaa ngi dégg baale ma la ñun taxawaluñ de. ok saama bi yabay Modou Mbaye Modou Mbaye xam nga xam nga xam nga xam nga la laay bañ a dégg ah kii dañ ko daan dañ ko def nii wóor na yàlla sama benn adversaire bu ma daan ah. buñ ko tegoon ba seetlu combat mu mu mun leen rëbb la. da ngay daw ba ci saako yi daan la da ngay daw ba ci saako yi. xam nga bëgg ma jël sa morom la. combat bu ma jël risque la. bii moo a nekk risque. non bii risque la. dëgg la yow loolu la koy combat. bii moo gën a nekk risque ci yow. barke Serigne Touba ah ma ne di nga nax sa bopp. barke Serigne Saliou Mbacké laa la wax kii bu ma daanee ma bàyyi bëri. loolu presque bu mu wax nañ dugal loolu eh nee na day bàyyi lamb ñun ñëpp ay góor lañ te gis nga lii nii lii nii du fay day dem ak doom yàlla dee góor nga sàmmal sa kàddu Ama Baldé ngir yàlla sàmmal sa kàddu. léegi wooteel. Euh, waaye gars yi déglu leen waay eh. nii lan la. waaye lii lii doy na waaw di woo Ibrahima Ndiaye Dia police yi nekkuñu. waaw voilà damay jàppale waaye. Eh. Seer Eh, sëñ bee sëñ bee eh yéen de bu ñu waaye ngir yàlla ñun du ñu liggéey suñu liggéey ba heure bi nga ko yàq li tax ñu teg sécurité bi xoolal fii ku fi waxate dañ lay génn ca biti raay nañu bay bëgg a dee lii la bu doon eh di nga investir say millions yu bari ñëw fii ñu mel ni tabeeroon nan lu mu doon waaye waaye ko waxal ñu jël waay xamoon rek maa ngi woo Ibrahima Ndiaye Dia borom transcom di ko woo di woo sama patron Basirou Ka di ko woo combat bi jàpp na si mais bu gën see jàpp. Ah, di woo ñoom Mama Ba waaw ñoom Babacar Diallo sama garant di woo ñoom Gàcc ñoom Giri ñoom ñëpp di woo ah combat bi seen combat di leen wax ne nag comme tey jii nii combat bi ci combat bi nii. waaw. mun nga ma fi affaire bakkan bi ah. di wax ma fi affaire bakkan bi. di woo li nga ba Poste Thiaroye maa ngi woo ñëpp jàmm gën ma fi yaa tarkindaa yi di woo Siteu bu baax a baax ci combat bi di woo Siteu tarkindaa bi ci bi bu baax a baax a baax a di woo waa Fass Mbaw yëpp ma fi caw sa xéer yi ñoom ñëpp maa leen di woo monsieur le maire Papa Gueye maa ngi koy woo ak Ndofène Faa di woo madame Margo Modou Mbaye ñii di ron mi ngi woo Baye Ousmane Thiaw mi ngi woo Baye Lek mi ngi woo Baye Ousmane Thiaw mi ngi woo Baye Sall bu Mbuur mi ngi woo Birame Gilas mi ngi woo Daouda Saltigué mi ngi woo El Hadj États-Unis Bëbë États-Unis Pape Gueye mi ngi woo Ndofène Fall mi ngi woo Modou Modou Sall Espagne waaw surtout mafia états-unis bi ah mafia états-unis bi maa ngi leen woo baax a baax a baax alaaji borom 500 mille maa ngi koy woo bu baax bëba doomu ndeyu fëgg la maa ngi koy woo bu baax a baax fëgg la moom du waxoo ci combat bi waaw dina am Malika barki suñu doon diggale digaale nga loxo door mu daanu jërëjëf jërëjëf waaw aywa aywa aywa balaa ñoo sori